mbokk yi nañ ca kër ga ña doon ñaan xaar nañ ca kër ga ña àndaan ak ñoom ca préparation ba ña nga ca kër ga ku ca nekk yaa nga wut fa nga toog ñii ci cëmakaay ba ñee ca kër ga ñee ca tribune ba kii ci siège entraîneur bi ndeysaan protège bi moom mu ngi noonu moom Cikiri jël na protestant bi ndeysaan jël na protestant bi Cikiri jël na protestant bi waaye Xaysara a ngi koy xaar ndax Cikiri ak Xaysara combat bu nar a neex كي أخاي سارة تكيري أخاي سارة نايسان تكيري أخي سارة arbitre bee ngi xool Cikiri waaye moom it mbooloo mi fi indi bari na moom Cikiri mbooloo mi mu indi bari na. Ndeysaan arbitre bee ngi waaj a sifflé cinquième combat de la dox ci diggante Cikiri ak Xaysara ndaysaan ci moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu vert lu am lu weex li xaysaara nga jàkkaar lool moo tentu bopp bi ndaysaan Cikiri mu ngi nekk Ikiri Grand Dakar mbooloo Grand Dakar nag bu ñu ko waxee sa xel day dem ndaysaan ci famille Mbaye Pape Modou Asbegay Momo Mbaye ndaysaan ñu ngi leen di nuyu ndaysaan xay saara jàppante na ko na ko jàpp na ko jàpp na ko cikiri jàpp na takk bi baax na takk bi baax na takk bi baax na roganti na ko laay laay la waa waa rëcc na xay na cikiri bu doon maa yow du rëcc jàpp bu baaxee da nga koy téye bul ko yaa xamti jàppante na ñoom ñaar cikiri xay saara ma ngay dóor ci suuf rogganti na ko ndaysaan ña nga ca dóoraat na ko ci kiri xay saara ñoom ñaar combat bi ña ngay xeex Tikire ngay dóor Xaysara tee na ndaysaan Tikire Xaysara ñoo nga ca combat bi ba tey dóoraat na ko Tikire dóoraat na Xaysara siggi na ndaysaan ñoo nga ca combat bi ñoom ñaar ba tey tey bëre baaxu góor la ñu ngi ci combat bi ba tey lu nar a xew ci Cikiri Xaysara ci Xaysara jàppante na ñoo ñaa arbitre bi àtt lu xew kaay leen ci digg géew bi arbitre bi siflé Cikiri Xaysara Cikiri jokasna, na Xaysara fay na mu delloo waat ko ko ñu ngi ci combat bi ñoom ñaar mu ngi déplacé wu moom Cikiri ma ngay déplacé wu ndaysaan ma ngay demee latéral Cikiri jiital tànk ndijoor sànni na Xaysara jiital tànk càmmoñ lu nar a xew lu nar a xew Cikiri xay saara Cikiri cokkaasan na ndeysaan xeex nañ ñoom ñaar cokkaasante nañ ñu ngi ci combat bi ba tey cokkaasaan na cokkaasaan na Xaysaara Cikiri ñu ngi cokkaasante ñoom ñaar ñu ngi cokkaasante ba tey ñu ngi cokkaasante ba tey cokkaasaan na tël na tànk bi laay bul dugg ci loolu xaysara jigéen tànk yi la daw na jëlaat ko jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañ ñoom ñaar lu nar a xew ma ngay dóor nañ Sikiri Xaysara jàpp na jàpp na <laughs> am na lu ñuy togg ci ñoom ñaari mbëri mbot bañ na xaw ma kan njëkk a yàq bu ñoree xomb boo yàkkee nit ñi lekk ma ngay dóor jàppante nañ ma ngay dóor ci suuf ma ngay dóor ma ngay dóor ma dóor dóor na xay saara cikiri dóoraat na ndaysaan ma ngi koy xëcc xay saara ngi koy xëcc waaye mention spéciale à Ibou Laye production ndaysaan sa mbagteem ci làmb am na solo te doo ko fàtte bu mukk bis bi nga dugg see ci làmb sa bis bu njëkk ci nga jël Youssou Ndour ak Mor Kang boole leen waaye tey képp kuy amateuru làmb bi mu dugg see ci stade bi xolam sedd na stade bi taaru na mbooloo mi wuy nañu la mbëri def nañ ambiance félicitation Ibou Laye yàlla na la jik ndaysaan lépp loo dëgmal yàlla na la ci yàlla may ndam loolooy àdduna góorgóorlu ndax topp mbër dafa am solo ndaysaan sama baay daf ma daan wax naan ku amul kilifa jinne doon sa kilifa waaye nit boo nangoo njiit rek sant yàlla ndax tay ba ngay ànd ak Modou xarañ loo ndeysaan arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na xay saara ndeysaan xay ak cikiri arbitre bi sifle waat na xay saara dox ci kawam cikiri bàyyi na cokkaas xay cikiri cikiri xay Jigiri Xaysaara sara Jigiri Xaysaara ñu ngi ci combat bi ba tey ñoom ñaar Jigiri Xaysaara cokkaas na daw na jëlaat ko ndaysaan daw na jël ko Jigiri Xaysaara mbot na ko mbot na ko mbot na ko bañ na bañ na bañ na Cikiri Xaysaara ñu ngi ci combat bi ba tey Cikiri Xaysaara ñu ngi ci combat bi ba ñoom ñaar Cikiri Xaysaara fan la combat bi du mujj ñoom ñaar ñu ngi ci combat bi bi jeex na temps bi jeex na temps bi jeex na lañ lay dugal lu ne rek ndaysaan affaire de gox la ku ci nekk gox bi nga dëkk couleur boobu ngay défendre ci làmb ndaysaan ay ca ñu ngi wàcc combat bi arbitre bi sifflé na dox ci ci Cikiri ak Xaysara Cikiri moo la woon ginnaaw ngembal ngemb lu verte ci deuxième période bi ndaysaan bëre nañ ba temps bi jeex dellu siwaat nañu cokkaas na Aysara cokkaas na Cikiri fay na ma ngay xeeb feex dóorante nañu jàppante waat nañu jàppante jàppante jàppante luy xew fàqat en tout daal ñoom ñaar ña ngay joxe Cikiri Xaysara ndeysaan kaisara ca Cikiri maytul wet gi mu ngi la fay Cikiri maytul foofu ragal naa mbër bu lay ubbil wet naan la jaaral fii bul wóorut de ndaysaan ñu ngi ci ba ci giri xay saara jàppante nañu ña ngay déglu ñoom ñaar ku ci nekk ma ngay déglu moroomam ñoom ñaar ku ci nekk ngay déglu moroomam ndeysaan ku nekk ngay déglu moroomam mbot na ko mbot na ko mbot na ko galgal ba baaxul da delloo da delloo da delloo bañ na laa ilaha illallah xale bi bañ na de a cikiri bañ na de xaysaara ngay tante waaye ma ngay bañ ma ngay bañ de ndeysaan xaysara mi taxawaay taxawaayu ñaali bañ naa la taxawee de mu ngi bañ rek de ñaali bañ naa la taxawee de laay laay la xëcc na ko loxo ba simeeku na loxo ba simeeku na laay lay la laa daan na daanu na ndeysaan eh booy bu leen sànni siis yi ay waay bu leen yak, bu leen yak, bu leen yak, suñu moomeelu bopp ay waay bu leen yak. ay waay bu leen yak. ay waay bu leen yak, suñu moom